allo wi maaleykum salaam. soxna si. oui. maa ngi lay jox sa bu baax a baax. ñu ngi lay delloo wàccuwaay bi tur bi ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Mor Faye di wootee pikin Mor Faye diwaanu Pikine. waaw di déggee Seydina Ousmane Sonko bu baax a baax a baax a baax. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw di rafetlu taxawaayam bu baax ci dëgg gi dëgg ak. Mhm. Sénégal ñor gi mu ko ñor. Mhm. ndax barki démb moo njaay lii ñu wax ne moom la fi waa Kër Macky Sall dem loolu dëgg la. Mm-hmm. ndax ku ma yàgg dégg may sa baabu économiste yàgg na ko wax. bu mm-hmm. ko mos a dégg yàgg dégg war yàgg nay wax lu mel nii. Mm-hmm. kenn faale ko woon Ousmane Sonko bi mu nekkee assemblée nationale député yàgg na ko taxaw di wax waa Kër Macky Sall yu demee nii. kon bàyyoon bu jël nguur door koo wax. ñoom ñi nga xam ne tudd nañ leen ni maa ngi dégg ay nit naan dañoo war a génn wax setal seen bopp ñoom buñ génnee wax sax setaluñ seen bopp justice mooy mooy takkalaate justice mooy setalaate mm-hmm. manipulateurs yi may dégg ñu waaw gars yi dañu war a génn def conférence de presse setal seen bopp mais buñ defee conférence de presse wax weddi taxul ñu set mm-hmm. justice mooy leen war a liggéey dafay ci kàttanu yàlla dina leen liggéey mm-hmm. seen coalition contre contre nature ñu fi indi nag man dama cee kontaan lool ndax sénégalais yi ci kàttanu yàlla la di set mhm. dinañ xam ne sénégalais yi sël mu wuñ jëmale kaw mhm. dinañ xam ni réew mii mhm. nelawuñ sénégalais yi yeewu nañ di yàgg taxaw di leen déglu ndax ñoom ñi ànd ñëpp ñëpp ñëpp ku ci nekk ci ñoom boo gëmoon dara as tuut doo ànd ak sa morom bugaan mii lu mu fi waxul Khalifa Sall amul Barthélémy Dias lu mu fi waxul bugaan amul Mhm. Pape Djibril Fall mii coalition Yewwi Askan Wi lu mu leen yàqul amul. Mhm. Thierno Bocoum moom may waxam man nag parti bi ci bokk dem naqari ma loolu mooy piir PUR. PUR waruñu woon a dugg ci coalition bi PUR bu ñu mënta ànd ak PUR sax dañoo war a jëm demal seen bopp. Mhm. ndax tey maa ngi dégg ñu ne. xale euh, Barthélémy Dias mooy tëdd liste mais du yoon. coalition bi ku bokk pire moo waroon nekk tëgg liste bi te ku bokk pire moo waroon a toppat liste bi xam nañ ni élection yi buñ ci demee duñ ci am dara léegi moo tax jël piir dugal ko ci biir pour mu bokk. beneen bi mooy APR ak PDS tamit loolu tamit acte contre nature la. Mhm. man daal loi bii tere acte contre nature moom war nañ koo xoolaat ndax lii moom. loi bi lan la ñu wax quoi. da nga jàpp ne kon seen euh, li nga xamante ni bi rek mooy seen booloo bi loi contre nature nga ko a a mag a mag te li ci xam nga ku ci nekk ci ñoom ku ci nekk ci ñoom. ànd mm-hmm. ngaa koo xamante ni say militant. Mm-hmm. duñ duñ la woote ci nga àndal. ñoom nit dañ koo def jàpp ni dañuy gàllankoor président Ousmane Sonko mais dañoo gën a arrangé Pastef. da ko xam politique nag. Mm-hmm. parce que Pape Djibril Fall xam na ni dix huit voix yi mu am mënu koo may mu dem assemblée. Mhm. Anta Babacar moom li am xam na ne may mu dem mu nekk député. Mhm. kële noonu Déthié Fall li mu am xam na ne mënu koo may mu am mu am député. Mhm. ñu mën naa am parrainage moom waxuma ay waxam. <laughs> comme ñoom bu ñu demee dugg ci benn coalition. bëgg a nax waa Pire. bëgg leen ci bëgg bëgg bëgg nax waa PUR pour waa PUR bu ñu nga xam ne waa PUR lu mu dee dee mën nañu am quatre députés wala trois députés. Mm-hmm. parce que euh, politique nekkul mm-hmm. nekkul nekkul diine ko quoi. Mm-hmm. dafa am loo xam ne boo ko bëggee def war nga mën a toog sa njaboot nga laaj leen lii may bëgg def. lan ngeen ci xalaat. ñun PUR bu ñëwoon ànd ñun ñun waa Pastef. lu mu dee dee dee mën nañoo am lu ëpp lu ëpp quatre députés di dem. duñ leen ko faj. Mhm. mais bukk yi ma gis ñoo àndal nag. Mhm. waa ko rëccu yi ëllëg mhm. la à cent pour cent. mais bu mooy parti bi ma gën a nekk parti yi. d'accord d'accord parce ñoom ñoo bokk ni ñuy doxalee. d'accord maître Moussa Diop daal dinay door plainte ki nga xamante ne mooy Boubacar Camara jëm ca daw ga mu dawoon yóbbaale ay kayitam ba tax mënul déposer ci yeneen élection non xam nga Boubacar Camara li mu def man dama koy ñaawlu bu baax baax a baax a baax parce que ay doomu aaro mënoo ànd ak ñoom ñu jël seeni seeni seen i liste jox la ko nga dem ba war koo déposé nga daw ba pare taxaw naa noo man Pastef lay jàppale bi mu xamee ne Pastef lay jàppale lan moo tax mu dem di nekk di doon di doon nekk seen mandataire. Mm-hmm. bokkul Pastef Boubacar Camara moom na leer moom bokkul Pastef. Mm-hmm. li mu def nag ñu ngi koy lu bu baax parce que loolu affaire traître la Jibril Ngom lu mel nii la fi defoon. Mhm. te lii sax lii yoon mooy procureur dafa war dem jëli Boubacar Camara indi ko teg ne ko lii nga def lan nga ci jublu. Mhm. parce que affaire trahison dëgg dëgg dëgg la def li mu def moom vraiment nee na nag waa Pastef lay jàppale waaye ñun waa Pastef de. Mhm. ñun moom li mu def ñu ngi koy naqarlu moom. est-ce que est-ce que deful li ni mel ngir taxal taxal ñi nga xamante ne bi rek ñooy waa Pastef wala tam Pastef lox seen loxo nekkul ci biir. mais loolu la loolu loolu lay nduru sax loolu lay nduru parce que lii mu def nii buñ ko bàyyee mu jàll gars yi dañ naan xool leen eh, nangam nangam état ñoo koy défendre moo tax mu def lii mu def moo tax ma ne moom bokkul Pastef te li mu def waa Pastef ànduñu. d' accord kon dañ ko condamné fermement. d' accord sortie Bougane bi ban jàngat nga ci am ginnaaw bu nga xamante ne bi rek Ousmane Sonko ba mu waxee ak ñi nga xam ne ñooy depuis ñooy presse bi jëmale ci situation réew mi Bougane dafa daal di def lu ni mel wax waaye tamit yàkkati ketame ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko rawatina sax mu dem ba cay wax ay nee na jamono ju ñu tolloo réew mi dafa seer ba tax nenu baxal bi gën a yomb 150 lay jaar. man de nenu baxal tey jëndee naa ko mais 125 ak mooy seen différence non. cent moom beneen neenu ma xal cent vingt cinq lay jar bu ñu ci defee poobar jimbo cent cinquante man nag mosuma dégg fu ñuy jaayee poobar ak jimbo bu dee dafa ànd ak ngeen baxal hmm. boo demee côté yi euh, Mboro côté yooyu boo ko demee hmm. ay bayaar bayaar hmm. cent franc boo ko amee da ngay am ngeen baxal xam nga buggaan dafay def politique te xamul politique mënul politique est-ce que gisul woon fi tamit yéen ñi fi waxoon euh, Ousmane Sonko mi fi waxoon beñ dugub beñ a dugub xëy rek daal di am ampleur taxul mu wax neenu baxal non xam nga Ousmane Sonko damay wax dugg dugub nit ñëpp ndaw wuti bañ a dugub mhm. di mhm. moom bi mu waxee neenu baxal da maanaam da cee daf yàlla nañ jigum kàddu mais da ci wax lu dëgg mhm. te moom sorteem boobu bu amoon xel du ko def xam nga lu tax moom nekkul foofu daralu Benno Bokk Yaakaar moom da doon xarab Macky Sall yore bu bon di mu yore réew mi mhm. léegi bu gouvernement bii nii Macky Sall li mu yore woon réew mi baaxul moom bu ci doon wax sax bu honnête doon dëgg nekk nit nekkul ab dof danaan lii gars yi wax dëgg la ndax man yàgg naa koo wax mhm. mais mu taxaw tey naan lii état wax du dëgg mais man bugaan ban la man laay laajte man ba ba fi mu toll nii gis ku mel ni moom mhm. parce que yow mënuloo taxaw ay at nga ne Macky Sall li ñu réew mi baaxul Mansour Faye sàcc na ma nee na Mansour sàcc na quatre vingt dix yoo xam ni jaarul trésor Bougane moo ko njëkk a wax. kon day ko bi a ñu ñëwee ne ñu yor appareil état wax loolu ñëwul appareil état. kon bu bi ñëwee yor appareil état ne am naa xaalis bu ñu leb te jaarul trésor moom bu honnêtoon normal day génn ah lii ñoom Ousmane Sonko wax dëgg la. Mhm. mais mu génn mel ni. te moom sax membre APR la. d'accord moom APR la APR la bokkoon da doon nëbbu sax naan opposant opposant Bougane mosul opposé wu Macky Sall. d'accord d'accord ñun doxuñu Ousmane euh, Macky Sall bi ñu opposant la ma sax mooy waa Pastef ak Ousmane yëpp dañoo làqatu mais kenn ci ñoom nekkuloon opposant am. d'accord ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax. voilà di ko jaajëfal bu baax a baax mu doon woote foofee ca diwaanu Pikine wax la nga xamante ne bi rek mooy gis-gisam ci tolluwaayu réew mi euh, jëmale ca la nga xamante ne bi rek mooy parti boobe di PASTEF ak ki nga xamante ne bi rek mooy maître Moussa Diop Bougane Gueye ni euh, situation réew mi fu mu daal di toll noonu nag euh, ca ay kaddoom nee na ki nga xamante ne bi rek mooy ki nga xamante ne bi rek mooy Bougane warut woon a def la nga xamante ne bi rek mooy sortie ndaxte sortiem boobu nag dafa nekk la nga xamante da koo gën a ridiculiser ndax dafa daal di wax la nga xam ne dara nekku ca la nga xam ne moo ca bi rek la nga xamante ne bi rek moo am ndax moom moo ko njëkk a wax voilà Bougane nag day daal di opposé wu ndax ci posture opposant la daal di mooy ay gis-gisam wax ba léegi ca la nga xamante bi rek mooy Maître Moussa ak euh, mandataire am boobu di Boubacar Camara mandataire bi nag daal dinay taqal ñi nga xam ne ñooy Pastef ci sauce bi ndaxte nee na yéen yéen euh, ñii di waa Pastef ñoom la bëggee jàpp jàppal tànk ñoom la doon jàppale te dafa bëgg kii di maître Moussa Diop daal di dem a fekk si ñii di waa Pastef lu ni mel moo tax mu daw ak kayiti te dina waxtaan ak moom ba pour mu daal di koy dégg bu baax a baax ba euh, tax ba tax euh, ñuy laaj ndax moom mënut mën njëkk njëkkee la nga xam ne mooy waxtaan woo woowale bu tàkkoorul mu daal di dem xool fa mu bëgg a far daal dafay ànd waaye nag jël ay kayitu jàmbur yoo xam ne dafa ko defar ba pare def ay test de list fa seeni dem ca googu la jongante nga daal di koy yóbbu dem ak moom ba pare ñëw taxaw nag di am looy lay nekk na loo xamante ni bi rek ñu ngi koy daal di ñaawlu trop ba fa mu faw yem léegi nag ki nga xamante ni bi rek mooy Boubacar euh, Camara kii di maître Moussa Diop dina koy plainte voilà euh, li leen wax rek euh, ngeen di di leen jaajëfal bu baax a baax euh, lii nga xamante ne bi rek mooy seen émission wax sa xalaat dina daal di dellusiwaat araba bi ñu daal di dëgmal ñu di ci ànd ak ay invité yu ñuy seqal waxtaan wi wax la nga xamante ne bi rek mooy tolluwaayu réew mi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg teewlu bi di leen wax rek ngeen di topp suñu ay programme di bës cloche de bi pour bépp programme bu ñu duggal du la daal di rëcc gën mën a yokk yokk doole jërë ngeen jëf.